dañ ci jàmm F24 fépp ci yéenekaay yi nu xëyandoo l'observateur ne F24 la gu ëmb gaayu fari ci kujje gi ak ci société civile bi démb lan woote woon am ndaje ca place de la nation mbooloo mu bari itam demoon wujji leen yéenekaay groupe Futurs Médias bi ne li leen taxoon a jóg moo di yëkkati seen kàddu ba àdduna bépp dégg leen ne njiitu réew mi fi nekk di président Macky Sall wërta bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 ya fa nekkoon ku bind ko seeni pancarte waaye journal U15 angul ko nis bi nee na mbir ma am nag lees waxul yemul foofu ndax nag dañ faa yuuxu Xalifa Babacar Sall ak Papa Djibril Fall ba ñépp dégg leen gis ni itam réeroo am na ci seen biir L'As Quotidien liy dëgg daal moo di yeewi askan wi éclaté na niki démb ndax doon xaxarante ci seen biir Les Échos ne li ko waral moo di Xalifa Babacar Sall ak Papa Djibril Fall ñoom la fa waa Pastef doon yuuxoo di naan warunoo jël kàddu Sud Quotidien ndaje la moo xam ne si bari na lool mbooloo bari woon itam lool coow Tribune yéen kaay ne F24 li nu dajale démb ci mbooloo waaye yeewi askan yu mësuñu koo def journal L'Info ne mbooloo ma bari woon na ba àgg ci lool waaye itam ndaje ma na mu jeexee rafetul mu neen ñoo fa daje woon bëggoon na xaxar président Macky Sall far doon xaxarante ci seen biir lii Quotidien tey laa leen di wax la waral coow la démb ca place de la nation journal bi ne Ousmane Sonko mi leader bu Pastef ak Barthélémy Diaz jege lool Khalifa Babacar Sall ji ñoo neexoowul ngi live di léebu sa morom loolee itam moo wàll si ba ca F24 gaay Pastef ñoo mënatul dara ci Barthélemy ak ku ànd ak moom te Barthélemy ku nekk xam na digganteem ak Khalifa Babacar Sall lii tax ba Pastef ak taxaw fi mu toll comme safara ak caas enquête yéen kaay ne F24 kay woote nan mbooloo itam wuy si leen ñu waxit la ñu bëggoon ba ñëpp dégg ko waaye la ca ñuul moo di lan doon yooxu Khalifa Babacar Sall ak Papa Djibril Fall Déthié Fall ne du dëgg te du yoon Déthié Fall ne bu yeewi dégg daal ci ñaari élection yi nu weesu nan ko ko gërëme moom Khalifa Babacar Sall tax nañu bari nekk député wala maire te ba fii moom Khalifa Babacar Sall dara la nekkagul li tax ba Déthié Fall ne kon du ay teggin ñu koy ñàkk war ma moom Khalifa Babacar Sall ak di ko mbëllee Vox Populi ne waa Pastef la booy Ousmane Sonko yi daal coow li am jamono ji ci diggante Barthélemy Diaz ak seen njiit moo tax ba ñu guuxal ko maire moom Khalifa Babacar Sall journal bi ne waa Pastef daal da ngay ànd ak Ousmane Sonko di wax lu ko neex di wax lu mu bëgg a dégg lu ko mooy ñoom ñuy yàq la musiba ndax ñoom Sonko rek la ñuy topp bopp source aane moom Ousmane Sonko gassa gassa gi mu woote woon kay mujjee naa tàbbi ci seen biir yéenekaay bi de monte nag bi ñuy waajal mbir mu ni mel li ñu bëggoon ñoom leader yi moo di Khalifa Babacar bañ a jël kàddu gi moom njiitul taxawu Sénégal mu lànk ne leen dafay wax te nag bu ñu yaakaaree ne li ñu def démb mooy tax ñu mën a jaamaarloo ko président Macky Sall ñoo ngi nax seen bopp Walf Quotidien ko téléphone moom mi fi nekkoon njiitu réewum la Obama woo ndax fi mu toll muy Amérique di France dañuy bàyyi xel li am fii ci Sénégal réewum Sénégal moom la Idrissa Seck bëgg jiite atum 2024 ndaamal Kajoor waxtaan wu yaatu la seq ak waa E-Média bés bi la jour xëy di dellu siwaat ci ponk yu bari yuñ fa waxtaane Ousmane Sonko dellu si na ci daan yi yoon gàll ci kawam Les Échos yéenekaay moo ko bind journal bi yokku ci ne son utali na Cour suprême ngir jéebaane fa daan bi nu gàll ci kawam ci coow li doxoon ci digganteem ak Mame Mbaye Niang ba tax ñu bari am xel ñaar ne du bokk ci élection présidentielle yu atum 2024 Walf Quotidien Dieng meneen mbir mi ngi koy xaar mu di coow li dox ci digganteem ak Adji Sarr ñu nar koo àtte ci kanamu chambre criminelle ya yéen kaay bi ne yoon moo ngi ci tànki jàpp ko moom Ousmane Sonko Vox Populi ne Alioune Badara Ndaw mi fi nekkoon procureur ci ay jamono moo xibaar ne Ousmane Sonko dañ koo bëgg a jàpp te loolee ay farandom waruñu koo seetaan libération yéen kaay ne ki nu jàpp ba fëgg ko mandat dépôt koy moo di Oustaz Assane Seck liñ koy toppe moo di woote fitna si bi ñu dénk wàllu yoon di Ismaïla Madior Fall nee na Sénégal am na fi mu toll